voilà jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp euh, tey nag am na ñu mbégte ñu seet si ku yàlla baaxal koo xam ni euh, ràññee nañ ko lool muy oustaz Mbaye Ndiaye oustaz Mbaye Ndiaye nag ñu bëri xam nañ ko. Euh, ci taxawaay yu am solo yi rawatina ci wàllu ko diine waaye tamit dimbali ki nga xam ne euh, mi ngi koy dimbalee jaam ñi ci li nga xam ne rek moom la ko yàlla baaxee mooy xam-xam bi oustaz ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, di am mbégte baax a baax a baax ngir jàkkaarloo ak yow vraiment ci jot gi nga ñu may ma bàyyi la nga nuyoo d'abord ak ñi lay topp ndax bëri na ñoo xam ne namu nañ la lool. waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Ousseynou ñu lay delloo nuyoo di jaajëfal baax di am contentement ci seet gi ngeen seet di jaajëfal di jaajëfal askan yëpp. Mhm. di leen wax ni nam man nañ ñu waaye yàlla xam na ni ñoo de raw yitte rek ak jàpp loolu rek la waaye tey nag moo tax ñu bëgg a génn wax ak ñoom. Mhm. incha allah. waa jërëjëf Oustaz mu nekk lu am solo euh, jamono ji jaxasoo na ndax euh, jafe-jafe yi bari na askan wi mhm. euh, ci wàllu saafara tey bu ñu doon wax ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu këyit lan nga leen di wax. waaye jërëjëf Seydina Seynou. Seydina Seynou damay faral di wax ni. la fi nekkan déggu fi ndax yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko dàkkantal woo mën nañu may dàkkantale Oustaz Mbaye Ndiaye borom la fi nekkoon déggu fi ku ko sàkkoo na ko mag ñi sàkkoon yàlla jox la ko ko joxoon mag ñi loolu mooy sama dàkkantal mooy adresse bi dafa bari torop ci askan wi waaye mën naa leen alhamdulilah nañ sant yàlla ndax wallaahi asim képp ku sellal jaar fa mag ñi jaaran yàlla jox lam joxoon mag li mag ñi yoroon nañ fi demul fenn mm-hmm. képp ku sellal taataan sa këll suñu borom sotti la ci la sotti lan mag ñi mhm. jafe-jafe yi ne nit ñi dalal seen seen xel dalal seen seen seen seeni xalaat mhm. te nag xooli ku ñu am ci ñoom yaakaar ñu wuti ko mhm. ñun nag duñu damu duñu puukarewu waaye nag suñu borom maye na loolu moom bokk na ci li ñuy wax kon daal ku bëgg tukki euh, bu boo ko ñaanalee yàlla mën na ko ci defal taw feex euh, sëy naa sëy loolu dañ ci am ay résultats yu leer nañ xam nga ñaankat ak am médecin ak sànkatu néew ñooy am mhm. dañuy doon ay nit secret mhm. loolu mooy tax waaye su fekkee ñaankat dana wiññ wala muy wax mhm. kon suy naa asanul dañ leeral loo xam ne nga naa lii sëñ oustaz nan la mën a nekk yi nga suy tukki ay ñaan la yoo xam ne boo ko defee am na ci genn ndomba goo xam ne wallaahi asim defalaguñ ko kuñ dëpp gis ñu koo defal nit ku ñu dëpp maanaam daal képp koo ko defal bu demee ñu ñu ñu tamponné ko incha allahu rabi su demee dañ ko tamponné dana dugg du dal siwaat moom te àggul yow moom jëm incha allah loolu de lool de loolu de askan wi soxla nañ ko bu baax vraiment ndomba la goo xam ni mm-hmm. musuñu koo defal ñaanal kenn koo xam ne ñaan ngay tukki bitim réew ñu dëpp la macha allah waaw mu ndomba gu compliqué nag gu naqaree liggéey mm-hmm. waaye nag kuñ ko liggéeyal mm-hmm. ba nga jot ci nga def ko dañ la ko waxe incha allah rabi duñ la dëpp. macha allah am na beneen boo xam ne ñi ngi ko fi dégg ñu bëri eh, xëy na di ko fi wut si boobu mooy allaylu layli lan nga ñu ci mën a leeral. boobu ah, doy na waar de. macha allah waaw mm, gis nga suy naa suy. allaylu layli moom damay faral di wax ni day résultat yu leer naa ñi. Mm-hmm. ay nit félicité nañu ci. Mm-hmm. bu baax a baax a baax a baax maam képp koo xam ne dañ laa jox ab séet mënoo ca dara wala nga takk soxna su bees mënoo ca dara wala say soxna dem nga ba ba ba ba sa karta niiw ci ñoom mhm. rikk waaye fexee la am allay lu lay lii mhm. muy garab googu di dolli kartaan di dolli ngóore mhm. te ma tuddee ko allay lu lay lii guddi gi sama guddi la muy garab goo xam ne yàlla xam ne amul benn effet nag dafa naturel ah dafa naturel. Mhm. boo ndax garab yi maam yi rek la ñu composé. Mhm. defar ko boole koo nag suñu sërru bopp secret bi nga xam ni. Mhm. moom la suñu maam yi ak suñu bàyyi daa jëfandikoo yàlla teg ko suñu loxo bii. ñu di ko jëfandikoo incha allah ku ko jëfandikoo da nga gis ndam. macha allah muy allah lu lay lii. ñu bari nag ñoom ko fi wut si ndax xam nga léegi télé dafa bari ci jamono ji. lekk yi baaxut. ba pare nit ñi duñ faral di naan lenn ci garab yi mag ak yooyu. moo tax. garab la goo xam ne ku ko jëfandikoo. Hmm. da sant yàlla. waaw macha allah mu nekk lu am solo xam naa élèves yi mënuma ñàkk a laajal ñoom ñi nga xam ne dañuy def examen wala yu mel noonu euh, am nga loo leen di ñaanal. waa ñi examen itam damay faral di wax ni. la fi nekkoon jógu fi finance nañu dem ñaan lu ñaan fi leen ko fekkal fi leen ko bàyyi. Hmm. mboolu nit yàlla yii ñu yaakaar sax ñoom dañuy ñaan. Hmm. di nga finance examen am nañ secret boo xam ne li may faral di wax nag man du wax kenn ni dama lay defal mu am. ndax loolu boo ko waxee day mel yow gëmoo suñu borom te yàlla moo moom ay mbiram waaye nag li mu moom dafa am fu mu ko teg ci ay loxo la ko teg loxo yooyu mu ko teg nag ku sellal loo ci ñaan suñu borom nangu yaakaar naa ni sëñ Fallou Ndong fekk na jotaay bi ma ngi nii am na lu am na lu ci xam ci wàllu bag ñun ci jëflanteel ñoo xam ne moom moo nu booleel ak ñoom ñoom ñëpp ñoo am ci at yi jàll du mel at atu ñaara ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne mënee su ko wax mm-hmm. ndax li ma la wax ci ñaan kat mm-hmm. waaye képp koy wala ngay def composition wala ngay def euh, extrait bu mën di doon moo xam bac moo xam entrée sixième mhm. moo xam euh, bu mu ci mën di doon rek mhm. insha allahu rabbi ba ci befem insha allahu rabbi bu ñu la ci defee lay ñaan incha allah da nga ci am macha allah xam naa boole ko di jàng nag. voilà xam ah. naa jot gi bariwul du njëtee lu bari lan ah. ngay baaxee askan bi. Ah. waaw gi nga sëy naa sëynu mhm. di leen wax rek ni leen nañu jóg xool foo ñu am yaakaar ñu dem fa. di leen wax ni la fi nekk jógu fi te képp ku leen ni du ñaandu ku leen ni du ñaandu ma ngi ñaandu. di nga loolu lu yàgg la sunu borom moo wax ni ni ngeen ñaan yàlla mu may leen hmm. léeg-léeg nga dégg na koo xam te naa la bul dem fenn di ñaanlu taxawal ñaan sa borom lu tax nit ki dina am comme yaakaar ni kii moo gën a ragal yàlla mu jóg dem ca kooka ni ko ñaanal ma ci yàlla ndax am na ñoo xam ne bu nee yaara bi suñu borom du delloo mais mënoo xëy ci caaxaan yi ci caaxaan di gont ci caaxaan di fanaan ci caaxaan di lekk lu caaxaan naa yaara bi yàlla la may dara yonent bi indi ko ci leer nañ muy dafa gis xam dafa tàllal ay loxoom di ñaan te la muy lekk daa araam la mi naan araam la mu sot araam mu ne kooku nuñ koy nangule léegi da ngay di gars yi di wax ci télé bi naan kenn ku ne ci yéen bu soxlaa nag julli ñaan yàlla dëgg la loolu am na solo lool mais nag demal ci ñi nga am yaakaar ni jigéen nañ seen borom ñu ñaanal la mhm. siy na asoyu mhm. fii amul lenn luñ fi dul def lu dul lu xaraam lu xaraam rek lañ fi def waaye lu mu mën di doon wàllu këyit mhm. ku bëgg a tukki ku tële koo xam ne da ngaa tële fii naa asul nga xam complètement tële kooku dañ lay traité mhm. buñ la traité insha allah da nga dellu fa nga ba ngay doog a jot soxna macha allah buñ la traité mhm. nga jël say say traitement mhm. yàlla xam na ni di nga mujj sax di nga yéemu sa bopp yooyu sa kattan macha allah mu nekk lu am solo nga ah. fàttali adresse yi fan la waaw adresse bi ñu ngi fii ci péncu Mbaye Wade ci Touba Darou Manaan péncu Mbaye Wade numéro euh, téléphone numéro téléphone yi 77 823 33 77 76 397 75 60. wala 78 117. 81 13. 117 81 13. yooyu yëpp incha allah bu ngeen ci wooree incha allah da ngeen di jot léeg-léeg dañuy woote du ñu jot fekk nañu jàpp bu ñu jàppee du ñu wuyu téléphone. ak koo mën a doon nag laa wax. mën doon boo ñu jàppee mënoo fexe ba nu wuyu la. appel la sabit dañ koy bañ. ku ñu soxla. woo appel bu ñu la mënta wuyu nga joxoon message saa yoon taale suñu connexion. Mhm. gis sa message ñu lire ko tontu la. macha allah incha allahu rabbi. jërëjëf jërëjëf oustaz mhm. voilà course gi. la ñu ci mën a baaxee tamit. waaw course xam nga. Seydou mhm. Seydou. xam nga booy xool TikTok beeg. kii da ngay yàlla ndax. li tax nga xam ni boo koy xool da ngay tudd yàlla. dangay dégg wax yoo xam ne yónul maanaam Seydou Seydou. yi nga jamono ji nekk képp ku ciy ñaan te yoroo tur yàlla walla wallaahi asim nga am ijaaba dalay jafe. aka lay jafe xam nga lu tax mu lay jafe ji nga sun maam yi li tax ñu daa am ijaaba ñoom mooy fi ñu daa dëkk néegu ñax la li ñuy lekk ñoo ko bàyyi seen bopp li ñuy julli ab der la nga xam ni bàyyi newat dunde ko noor bu ne jotee ñu bàyyaat loolu lañ xamal ñoom mhm. jiga yàlla lool ndax looloo tax duñ gis jigéen duñ dem ci taax yi duñ gis dara bu nee yaara bi man am naa maam yoo xam ne toll na foo xam tax dawul bind amoon na ci ijaaba tolloon na ci ijaaba foo xam ne këllub suuf la yoro boo ñëwee mu tibbal la jox ak koo man doon boo demee la nga soxla faju yàlla xam na ko gi nga yooyu sama waajur man bilaa ma xin walaa faxrin du ma ci puukar du ma ci damu tey buñ paree mën naa laa ñi nga xam ñoom laa bokk nañ ci saan bu ma saa tàngal wax suñu borom def ko man sama waajur man buñ demoon tey suñu dëkk ci saan dama naa diw ak diw ak diw sama ñoo tax ñu am jabar mhm. fu ñu dem ma ñu dàq leen bu waxee li wax bu la mbéjee dafa wuti soxna boo wuti am am na koo xam ne benn suur sañ sama sama papa doon liggéeyal sëñ Tuubaa kooku ñëw ne ay yéen murid nii ngeen def nangam ak nangam sama papa daal di mer ni ko waat naa ci yàlla dootoo takk benn soxna beneen soxna ba tey jii ma ay kooku amul amaatu soxna ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne te wax ko ngi naa kooku ñëwaat na di ko jéggalu sama papa ni ko loola bal bu tàkk la mootuma ci dara ak yeneen secret yoo xam ne mënees koo wax allah yi nga sénation mhm. nañu dellu ci yàlla jël turu yàlla di ñaan ci yàlla sunu borom dañu fajal aajo yi ci ngir jëm yàlla mhm. waaye bu ñu toppee ñii ne ci tiktok beeg nangam ak nangam defal lii def am lii defal lii am lii ay kàcc dong la du dëgg yàlla dañ koy jox sa lépp mhm. mu jox la tuuti ci li mu mhm. tuuti joojee nag mën naa faj aajo jaam ñëpp macha allah jërëjëf waaw jërëjëf